ok gars yi yéen ñëpp da ngeen gis ma affiché photo Rango photo Rango da ngeen gis ma affiché ko waxaguma dara ci moom nag dama ko affiché rek léegi nag li tax ma affiché ko dinaa leen ko leeralal comprendre nga ba tey waxuma dara ci moom de xam nga damay bañ yóbbu ma ñu ne da ngaa affiché Rango wax ci Rango dara comprendre nga waaw man lu may wax rek day leer fekk ma yore ko da gis yéen ñëpp ma affiché photom Instagram mi ngi nii ma affiché Rango léegi nag. li tax ma affiché rango dinaa ci ñëw dinaa ñëw ci loolu leeral leeralal leen lan moo tax ma affiché rango ah su ma paree foofu bala maa ñëw nag gars yi dafa am lu may jàllale bala maa ñëw ci cas bi daa am ay bagages yu may jàllale ah merci beaucoup maa ngi leen di ziar ah du di nuyu ñëpp xaaral ma dindi rango en attendant li tax ma affiché ko dinaa ci ñëw ah maa ngi ziar ñëpp di leen bëggee di bëggee waa Facebook ah Facebook ñoo ngi 1500 personnes di ma seetaan Instagram ñoo ngi presque 2000 personnes ah merci beaucoup. Ah, di leen ziar di leen bëggee di baalu àq ñëpp ah di bëggee ci ñuy seetaan ak képp koo xam ne nii yaa ngi seetaan aadama bos Day néegi rek Adama mu ngi lay bëggee di la ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay ah di leen bëggee bu baax a baax di ziar ñëpp gaay yi bala maa ñëw ci kaa bi liste bi moom gis ngeen ko juróoma ciy jaaraat dinaa ci ñëwaat mais gis ngeen liste bi liste bi nag képp koo xamante si nii man aadama man maa leen ko wax man Adama boo see néegéen xam ngeen man moom du ma waxantu man du ma toog di waxantu loo xamante si nii leeru ma moo tax man du ma faral di wax gis nga kaa bu amee war a xew du ma teel a génn xam nga tax du ma génn parce que man du ma waxantu man lu may wax rek dama bëgg muy leer ma am fu ma koy teg moo tax du ma wax gars yi dama leen di bàyyi ñuy tararari di bind di wax di tararari comprendre nga man du ma teel a wax mais su ma waxee rek chaque jour moo wax leen ko nee naa man. ku mën a nettali laa waaye du ma fen lu ma yëg nag su ma bëggee mu siiw day siiw ci saa si mais fen moom du ko def du ma du mais ku man a nettali laa ak maa mën a nettali waaye duma ma fen comprendre nga maa ngi nuyu ñëpp ah, di siyaar ñëpp euh, liste bi nag jëruñu siy ñëwaat dinaa ci ñëw ak yéen après ah dinaa ñëwaat ak dinaa ñëw ci yéen dinaa ñëw ak yéen ci liste bi incha allahu rabbi képp kuy sénégalais di nga génn képp koo xam ne influenceur nga wala ngay artiste wala ngay artiste wala ngay influenceur wala ngay animatrice wala loo mënti doon incha allahu rabbi ah chaque jour mën naa leen a laayifal génnee leen deux personnes bis bu yàlla sàkk ba ban man waaw incha allahu rabbi loolu koy maa leen ko garantir man Boss Day Negri du ma gaaw a wax ku mën a nettali la waaye duma ma fen waaw maa ngi ziar ñëpp ah di bëgge ñëpp waaw léegi nag euh, balaa maa ñëw ci li nga xamante si ni moom mooy cas bi bala maa ñëw ci cas dafa am lu may jàllale mu nekk Wally Seck incha allahu rabbi Wally sekk le 14 mai la 14 mai Wally Ballago sekk fële ca itali incha allahu rabbi site bi mën nañ koo jëndee bee yi ñi nga xamante ni jënd gun parce que bee yaa ngi waaj a jeex. ñi nga xamante si nii jëndagul bee mën nañoo dem ñu jëndee ko ci euh, Wally Seck ah mi ngi nii xaaral ma ko site baa ngi nii mën nañ koo jëndee ci euh, Wally Seck menos mooy terrain bi ci kaw Wally Seck menos milan point comme Wally sekk ngay def daf terrain bi ci kaw nga def milan point comme su ngeen duggee foofu mën ngeen a jënd bee ñi nga xam ne jëndagun te ñu sori mën nañoo jëndee bee ci site bi Wally Seck ngay def def meeno trait bi yaa ngi dégg après daal def milan daal def point com incha allahu rabbi di nga am b gaaw leen nag parce que et hôtesse yi commencé nan waxoon naa leen ko fi hôtesse yi ñun ñëpp dinañ am t ñi nga xam ne nii bokk nañ ci staff bi dinañ am t yaa ngi dégg dinañ am t-shirt ah sécurité bi dina am t-shirt lépp daal waa Africa 7 préparé nañ ko incha allahu rabbi Wally moom nee na ma incha allahu rabbi nee na ma ci boppam Brescia nii laa koy def. tas tas tas damay tas Italie ay ku tardé loolu ay ku tardé loolu gars euh, bu loolu jàllee nag euh, benn point mu bañ koo fàtte bala maa ñëw ci cas bi mooy ajaratu kinna laam sunu yaay ji xew-xew démb ak man Wally Ballago Seck mooy ngi tey ñu dem ci fan le 6 mai incha allah ci anniversaire suñu yaay ak xam naa ne yéen na moom yéen na. ajaratu Kiné Lam ah. muy daal di leen fëri ci ku ne xam na ni waa ji dafa bëri ay yaayu Wally ay bàjjenu Wally yoo xamante ni génn yomb leen woon te nag suñu yaay Kiné Lam jox ma occasion ma war a jàkkaarloo sama yaay yooyu sama soppe yooyu sama bàjjen yooyu. ok gars yi ajaratu Kiné Lam ku ne xam na ne bis bi Wally Seck la ko tuddee Wally Seck mooy way mooy mooy mooy joué ak ah mooy joué ak Ramdan foog naa deuxième partie bi ah Wally Ballago sekk léegi nag gars yi ñuy wax yéen ñëpp ngeen ñëw soutenir suñu yaay ah Fatou Kiné Lam ajaratu Kiné Lam kat xew-xew bu mag na am lan moo tax mu taamu ci Wally nag parce que Wally doomam la doomam la léppam la te waali da koo respecté ñu bëree ngi naan nag waalan moo tax artistes yi ni ñu bëree ajaratu kile lan dem ci Wally mais pourquoi du dem ci Wally réew mi Wally sekk moo fi nekk di Wally sekk moo téye réew mi nii la ko def faramaarin yi ñoo moom réew mi xoolal man maa moom Instagram moom TikTok man maa moom Instagram moom TikTok moom moom Facebook gars ma leen di ñaan nag yéen ñëpp. ngeen abonné ci sama paas YouTube bi Adamo officiel Capo yéen ñëpp soo leen duggee ci Instagram bi da ngeen ko gis wala ngeen bind YouTube Adamo da ngeen ko gis aadamo officiel Capo yéen ñëpp na ngeen dem abonné fa parce que YouTube bi gaa yaa ngi ciy liggéey lu am solo ah merci beaucoup éditeurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir ah ñoom Momo l'international ah ñoom ñoom ñoom ñoom Draw ah sama xarit bi maa ngi bëgg ñëpp waaw ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer pass yi nekk ci affaire yi maa ngi leen di bëgg di leen jaajëfal bu leen fàttee abonné ci passu YouTube bu Adamo officiel Capo sinon information yi da leen di raw bu leen fàttee abone foofu maa ngi siyaar ñëpp di bëgg ñëpp ajaratu ki naam nag dama bëgg ngeen teel a jënd bee yi jël ay taabul jàppale ko ah, parce que yaayu waali bu xewlee ajaratu ki la naam nag ku nekk dem jàppale ko jënd ci bee yi jël table yi parce que bis bi du bis bu ndaw faramaarin yépp nañu jóg na ñëpp nekk ci ginnaaw ajaratu ki la laam le 6 la ak le 7 ñaari fan lay fête anniversaire am ñaari jour le 6 mai ak le 7 mai ah loolu dafa garaaw le 6 ak le 7 loolu dafa yéeme trop ah ajaratu ki la laam ah ñun ñëpp ñi ngi sa ginnaaw waaw gars yi yéen ñëpp na ngeen teew ñu nekk ci seen ginnaaw ñu nekk ci ginnaawam ñoom ñëpp ah waaw 2500 personnes Facebook 2500 euh, Instagram ah Ah. gars yi ñu avancé temps amul ok dañuy avancé eh gars yi ngeen baal ma de bala ñoo avancé rek Sadio Mané Sadio Mané damay wax ci moom lu tuuti ak Macky Sall ñu doog a jublu ci cas bi Sadio Mané gars yi Sadio Mané sénégalais la Sadio Mané sénégalais la gars yi. sénégalais la Sadio anamu photo Sadio Mané man ndax yor naa ko fii ok Instagram teg naa ko mais euh, fii moom gisuma ko fii quoi gisuma ko fii c'est difficile pour ma di ko wër ok tantôt yi da ngeen may dégg li ma leen di wax gars yi damaa bëgg ñu xam ne Sadio maane doomu réew mi la Sadio maane sénégalais la il est le meilleur Afrique ba Afrique jeex Sadio Mané moo fi daq dàq football ñépp ko ko nangul day dugal day gis di dugal di dugal ay bi yu rëy mais ñaanal leen ko mu jël ballon d'or bi même bu jëlul première ngeen ñaanal ko ngir yàlla ak war a suul yi mu deuxième moom da koy jël par force première kay laa bëgg mu mu mu nekk ca kaw ñaanal leen ko te ngeen bàyyi hypocrite bi ni ngeen nekke neexuma Sénégal boo gis muy statut Benzema Benzema ballon d'or Benzema mais Benzema indi la ñu Coupe d'Afrique gars yi dañuy waxante dëgg benn Benzema indi lu ñu ndeyi coupe d'Afrique te coupe du monde bi Sadio Mané la ñu yaakaar léegi ñun lan mooy suñ devoir ñu rendre ko félicité ba nga xamante ni day kontaan bu nekkee ci coupe du monde bi day rayante def le tout ban jot coupe du monde sa waay ñun Benzema defu lu ñu gat xamuñu yaayam xamuñu papaam xamuñu ndijaayam xamuñu xamuñu dara ci Benzema ay mbokkam xamuñu ko ñee ñu ngi jàggal la xam-xam si bax baas la ñuy làkk ñun ñuy làkk wolof mënuñoo bokk na nga def maa ngi fi la ñuy wax ñee di wax xay fa xaal xawma lan ak lan ak lan bokkuñu ah amuluñu benn importance Benzema amuluñu benn njariñ ñun ñun ñun sénégalais lan ñun kii mooy sunu joueur ñun Sadio Mané lan xam Sadio Mané lanu miin kii la du xam gaay bokkuñu dara Benzema ñaanal leen kii ngir yàlla ak wa rasuli ñaanal leen Sadio maane jour la grand jour la moo dàq football Afrique waaye ñaanal leen ko nag mu jël coupe bi wala dara ah man damaa sonn quoi hypocrite baaxul nit da ngay gëm sa bopp da ngeen ni gëm seen bopp sénégalais da ngay fier nga doon sénégalais gëm sa bopp. mais yéen gëmu leen fi ngeen bopp Benzema fii Benzema fee lan mooy Benzema lu muy làkk kan moo ko xam sa waay nan waxante dëgg bu loolu jàllee na gars yi euh, damay ñëw ci benn point après jublu ci cas bi directement parce que man suba damaa war a liggéey moo tax tey defuma ko minuit ok beneen point bi may ñëwaat mooy Macky sàll président Macky non mais man photo Macky Sall mënu ma koo taf mais garaawul gaay sa tat tat tat gay man nag du ma Macky quoi mais dama leen wax benn affaire Macky il est très dangereux xam nga lan moo tax mu dangereux parce que dafa mën a politique sa waay politique la man xam nga Macky waxoon na fi ay temps mu ne opposition bi dinaa ko gën a tuutil xam nga tey jii jël na Serigne Modou Kara mu daat kay fol li nga xamante si nii moom mooy ah ambassadeur DP DP du du P xaw ma DP maanaam tey jii Gambie bu doon xeex ak beneen dëkk Sénégal war cee am lu muy lu muy lu muy wax Serigne Modou karaa mooy dugg ci jat privé bi dem ba Gambie waxe ki nga xamante nii moo waral xeex bi ba pare nag def ko conseil de ministre mais mais kii kii kii moo mën a politique. wax dëgg yàlla moom politique moom da koo mën quoi man du ma Macky du ma Sonko du ma kenn mais makki sàll ci boppam moo mën a politique dafa mën a politique te nag des na de Macky nee na des na am na ñeneen ñoo xamante ni dana ñëwaat fi mu toll nii nag sëñ Modou Kara esa bii nag day commencé ah di laal ci jet privé yi di dem ay Arabie Saoudi di wax ak ñoom ah di dem ay waay yow non sëñ Modou sëñ Modou Kara lii mosu ko am sëñ Modou Kara mosu am lii. day commencé di laal jet privé yi ndànk ay Arabie Saoudite fu ne mu teg fa tànkam teewal fa Sénégal problème bu mu mënti doon moom mooy dem mu réglé ko buñ ca amee parti moom moo war a dem toog wax ak ñooñu lépp loo xamante ni paix da koy woote rek sëñ Modou Kara moo fa war a taxaw ah loo xam ne nii paix da koy woote rek sëñ Modou Kara day laal jan privé non moom mooy Macky Sall moo mën a politique. non Macky dafa mën a politique gars yi xam nga nit ki da koy nangul li nga xam ne yàlla may na ko ko Macky Sall ku mën a politique la man xam nga man du sama yónneewul ci ay Macky Sall ak ko mais dafa mën a politique quoi dafa ay maanaam moom dafa ay daa xam politique politique la xam ci boppam dafa aay ci boppam non dafa aay de il est très très très dangereux dafa dangereux de politique la xam daa xam politique de. waaw da ngeen a xamul nag mais politique rek la dafa xam politique quoi da koo miin dafa mën mën politique waaw. ok bon gaa yi su ko defee ñu jublu ci cas bi sama nombre de vues yi nag dee leen ma ko fotol parce que damaa bëgg a comparer Instagram bi ak Facebook bi Facebook maa ngi ci ay 3100 personnes yéen ma tugg leen 3000 mais léegi ngeen egg fa yéen waa Instagram gaaw leen mat 3000 bala maa jegg ci cas bi ah aw ma taa de kat leen ndayam gaaw ma 3000 wa da ngeen may yëpp yéen. Facebook moom mention spéciale ñoom direction 4000 lañ jëm ah Instagram yéen gaaw leen matagu leen 3000 de na gaaw tuuti bala maa jubli ci kaami kii mooy caba caba caba caba ana photo caba ana photo caba waay sarab nday yi rek gis ngeen kii làq kanam gi nii gis ngeen kii kii ngeen di gis nii caba sekk la tudd kii yéen koy gis yéen ñëpp gis ngeen ko bu baax gis ngeen ko bu baax xool leen ko bu baax xool ko bu baax sénégalais la caba sekk la tudd moom lay wuyoo ci turam Dubaay la nekk moom la naar bi jël ah jox ko xaj bi xaj bi di mar di mar lëf li di ko mar di ko mar di ko mar non xaj a bëgg lëf jàpp data bi di ko mar di ko mar di ko mar di ko ba tàng dugal koy bi di ko kat di xaj bee koy kat ba daanu léegi imaginer tey jii xaj bi am ak doom ak caba maanaam xaj bi am doom ak caba lan la Sénégal di mel doomu nit ak xaj xaj bi da koo kat laa la wax ba daanu vidéo yépp laa leen di wan xaj bi da koo téye di ko kat jàpp caba di ko kat jàpp kajata eh, ca caba di ko kat jàpp caba di ko kat ba daanu daanu la def xaj bi xaj a bëgg lëf lëfu nit mu yow xaj nga doo dem ci xaj yi nga katt ko jàpp lëful cabali di katt ba ba daanu jàpp caba di ko katt laa la wax ba daanu caba sekk sénégalais la ma nga Dubaay vidéo yi naa leen ko dugalal ngeen gis lépp li ma leen di wax comprendre tey vidéo yi Kocc dina dugal man dinaa dugal chaque deux chaque benn bis bu nekk dinaa leen génneel ñaari sénégalais déggoo ma de bis bu yàlla sàkk dinaa leen génneel deux ba ni ni matee ñoom benn par benn sénégalais yi nekk Dubaay moo xam influenceur nga moo xam da ngay moo xam da ngay TikTok yaa xam looy def chaque jour dinaa leen may ñaari vidéo ci sénégalais yooyu ñi nga xam ne nii ñu ngi Dubaay man sa waay yi dañuy waxante dëgg te yàlla tax léegi yow xaj bi bu kattee caba caba ëmb léegi léegi caba bu ëmbee nu muy demee bu caba amee doomu xaj nu muy demee bu ko xaj bi ëmbalee nag bu ko xaj bi ëmbalee nag nan waxante dëgg xaj bi yéen bark gis nga jigéen ñu bari ci Sénégal liggéeyatul bëggu ñoo am jëkkër xam tax yu mel nii koo ci gis mu teg gara fas mun ta nekk gars yi il faut ngeen ngeen gars yi il faut ngeen sama verre yi damaa war a dindi ndayam sax mais su ma ko dindee du ma gis commentaire yi bu baax sama yaram commencé naa tàng Red Bull bi faaw ma rof ko ci lëfal nday ni tey imagineel gars yi bee Dubaï bee Dubaï xam nga la lay jar presque un million lay jar wala un million deux cent bee Dubaï nga yegg Dubaï war a jël hôtel quatre euh, deux semaines wala hôtel benn semaine wala nga def fa trois jours wala quatre jours hôtel ngay dal fan la xale yi nekk liggéeyut boo yi ngeen gis ñuy dem Dubaï liggéeyut defuñu fa dara nee naa leen billet Dubaï un million lay jar wala un million deux cent pour déparé Dubaï dem billet bi kese boo yeggee da ngaa war a jël hôtel quatre jours quatre jours nga war a jël hôtel wala trois jours kan moo la koy fayal du ñëpp nag mais boo yi bari di dem Dubaï fii liggéeyul liggéeyul ñu cottu ndeyam yoruñu xaalis non non liggéeyul sa waay dañuy waxante dëgg booy yu bari ñu ngi dem Dubaï yoruñu dëjjaw ndeyam amuñu xaalis booy liggéeyul yoruñu xaalis. amuñu xaalis da gis boo yoo xamante ni ah dañuy dem Dubaay ah nga yaakaar na ñoom ñoo ci nekk suñu wàccee Dubaay booy liggéeyun man maa leen koy wax liggéeyun defuñu dara amuñu xaalis amuñu xaalis liggéeyul mënuñoo ne xam nga affaire bi maanaam dafa am euh, il faut ñu am loo xamante ni dañ koy waxtaane ah xale yu jigéen yi. léegi ñu ci bëri nangootu ñoo am jëkkër xam nga lan moo tax nangootu ñoo am jëkkër parce que yu mel nii moo tax nangootu ñoo am jëkkër bëgguñu jëkkër ci yii la ñuy business di ci dox ah merci Facebook yéen a ngi ci 4000 personnes Instagram sax mi ngi waaj a egg 4000 moom it ci yii la ñuy dox ah xam nga ci lan la ñuy dox ci lii affaire u jaaxaan ah yegg fële ay naar man barke alxuraanu karim se préfère man ma doon pauvre 40 000 fois may juutu xaj di ma kat. imagineel xaj di la kat loolu dayul de naar yi di juutu ngay ŋàppi sa gémmiñ naar yi di day ay day nga koy lekk mais sa dafa am loo xamante ni bu ma ko imaginer rek nara nara kat nday dëkk bi imagineel yow nga nga ŋàyyi sa gémmiñ naar bi di day ci ngay lekk day ñu boole la xaj muy lay juutu di kat sa ndey bay daanu quarante mille fois pauvre moo ma gënal juutu man kat di ma kat sa am na yoo xam ne nii du yëfu nit quarante mille fois man ma nekk ko pauvre moo ma gënal may juutu sama data bii li kooyu nit war a dugg kooyu xaddi ci roof mais c'est honte ngi nii dama ko affiché léegi xam nga lan moo tax ma affiché ko damaa woo caba caba mii dama ko woo téléphone man maa ko woo appel kii numérom Dubaay maa ko woo appel na ko dinaa doxaan sa ndey si live bi mu daan ne ma affaire bi de du man kese yaa ngi dégg daan may bolek bëri na ci ay sénégalais yaa ngi dégg di wax ba tudd rangu moom man tudd ma ko de man waxuma ràngu moo def de dama ne la moom moo ko cité ak yeneen i tur man daal en tout cas li ma leen mën a permettre xam nga moy lan chaque jour bis bu yàlla sàkk dinaa leen dugalal ñaari personne incha allah bu fekkee yàlla bu fekkee yàlla li mu mayee dañul chaque jour dinaa live dugalal leen ñaari cas ci sénégalais yi waxuma nag Rangou moo def dara dama ne la dama kaa woo téléphone man man maa ko woo appel waaw waxuma ne waxuma naan ay Rangou moo Rangou waxuma leen dafa def dara nag damaa bëgg mu leer xam nga mën ngaa wax dara ñu dugal la ci naan ay danga koo affiché déedéet déedéet du du du ràngu dem na Dubaay mais ñi dem Dubaay bari nan ñi dem Dubaay kenn mënu leen a jeexal am na ñoo xamante nii buñ leen limee àdduna bi tukki dafa ne am na ñoo xamante nii buñ leen tuddee cité leen àdduna bi toj am na ñoo xam ne buñ leen tuddoon àdduna bi toj xam ngeen kii kii xam ngeen ko kii ma leen officiel xam ngeen ko ku xam kii wax ma ko Sénégal wax ma ko borom kanam gi sa waay man ñoom ñëpp laay génnee soo leen ko xamul ma wax leen man mooy moom mooy kan. ku xam kii nga wax ma ko boo leen xamul kii ma wax leen man mooy moom mooy kan sénégalais bi ku ko xam xool leen ko bu baax. boo leen xamul kii ma wax leen ko xam ngeen kii sénégalais bi xam ngeen ko wala dama leen a war a wax kan la xam ngeen sénégalais bi ma avisé kii moo ngi tudd kii ma affiché nii moo ngi tudd Bichette Bichette Thomas ay sëba lay jaay Bichette Thomas ci ñebo ñi demoon Dubaay la ñi naar yi doon kat di day seen gimiñ ji ak di leen baaraam ci la bokk Bichette Thomas ay sëba lay jaay sénégalais la ay sëba lay jaay sëba Bichette Thomas ci la bokk sénégalais la mi ngi nii seen mbokkum sénégalais la déggoo li ma leen wax nee naa leen kenn si ñoom benn par benn dinaa leen affiché képp koo xamante si nii bokk nga ci lii képp koo xamante nii bokk nga ci dinaa la affiché benn par benn chaque jour chaque bis bu yàlla sàkk dinaa leen tegal ñaari personne dama ne la bis bu yàlla sàkk chaque matin bu ma yeewoo man aadama bu yee li yàlla mayee dañul dinaa leen officiel fii ñaari personne liste bi nag joruma ciy ñëwaat jorumay ñëwaat ci ci liste bi parce que liste bi xam ngeen ko list bi jëruma ciy ñawaat foog naa yéen ñëpp gis ngeen ko ok xaar leen ma ñëw liste baa ngi nii gis ngeen 43 fii la fii mënut a génn bu baax mais gis ngeen ñi nombre yi ñu bind nii nombre yi ñu bind nii yëpp képp koo xamante ni sénégalais ga dinaa la teg man ci live bi yaa ngi dégg feeñal la ba nga génn incha allahu rabbi liste bii ngeen di gis nii c'est que damaa gisul liste bu bu baax parce que sama beneen téléphone bi nekku fi xaaral ma leen. gis ngeen ko nii 43 filles sénégalais 11 miss déglu leen bu baax 11 miss 14 tiktokeuses te man tiktokeuses yi demoon Dubaay yëpp xam naa leen tiktokeuses yi nga xam ne jóge nañ fii dem Dubaay yëpp xam naa leen déglu leen bu baax 11 miss 43 filles lan 11 miss 14 tiktokeuses yaa ngi dégg 13 mannequins 2 animatrices rajo ak télé liste baa ngi nii. ñi nga xamante si nii man daal ñi nga xamante si nii daal sénégalais muy sunu doomu réew beneen lëf nag man nag naar yi bu nu kattee ivoirien sama yónni wu ci datam mauritanien mën nañ koo sax boole ci biir amul problème lëfu lëfu Cameroun sama yónni wu ci data burkinabé sama yónni wu ci lëfal Congo sama yónni wu ci datam nigérien sama yónni wu ci datab dominikaana sama yoon newuti ah lëfu Mali resuma ko mais lépp loo xamante si nii lëf la loo xamante nii datab senegal lañ ciy wax lu jëm ci sénégalais dinaa la génnee ñoom ñépp nag laa wax xam naa ñafa fa demoon xam naa ña fa nekkoon du tudd kenn du ma dara en daal ñaari tur jox naa leen ko tey mu nekk caba Seck ak kii nga xamante si ni moom mooy Bissette Thomas ñaar ñi ci la bokk leer na ma moom naññ incha allahu rabbi dinañ ko dugal moom tamit euh, képp koo xamante si nii tiktokers ga man moom ña fa demoon xam naa leen xam naa nee naa lin man Adamo lu ma yëg mu siw ki bu may neex mais du ma fen ku mën a nettali laa wax naa leen ko léegi man damaa mën a nettali. waaye fen moom du ko def lu ma wax rek daa fekk ma maîtriser ko pour lan lan moo ko jar lan commentaire dama ne la caba bu ko xaj bi ëmbalee luy xew kocc ndax yaa ngi en ligne kocc bu fekkee yaa ngi en ligne bind ma waay ne yaa ngi en kocc ak a bëgg turam xool ko mi ngi bind lu mu wax maa ngi en ligne moom ok lay xaar kocc ngi nii maa ngi en ligne ma ne ko ok da lay xaar nga jox ko ok mu kat nday vidéo yi mais nag tey booy tey dama lay bàyyi nga dugal ci sit bi man damay def live à part damay xool sama compte yi ban moo ciy dox parce que faaw ma wane caba fi koy kattee xaj bi di ko katt mu masqué kanam gi ok tey dama lay bàyyi nga dugal mais man tamit dama leen koy wan ci beneen Instagram insha allahu rabbi léegi gars yi imagine leen tey jii euh, imagine leen tey jii caba xaj bi ëmbal ko lan mooy xew ah lan mooy xew bu ko xaj bi ëmbalee su ngeen jógee naan non ah Adama dafa bon ah Adama dafa iñaan naw mi man de benn benn ñag moo bëgg ma jël ko rek e dafa des ñaari kaa de fàtte woon naa la sax alo alo allo. sama sëriñ ñëw fàtte woon naa la sax nu mu demee. ça va macha allah. ça maa ngi ñëw si sa kaa nga nettalil ma ni mu demee dégg nga dinaa la woo ma ci ligne bi. Euh, mën wax avant nga may rappeler yow. na gaaw. Euh, bu fekkee ni mën na ñëw waxante man ak yow sans pour autant que mu nekk mu nekk live. waaw man dama la man dama la doon suivre. waa dama bëgg ñu waxante man ak yow avant que muy nekk live. Mhm. bu fekkee ni mën nga ma may loolu yow laay déglu waaw. mën na nekk. maa ngi lay déglu waxal. d'accord jërëjëf merci. Mm-hmm. Euh, man bi ma bi ma bi ma envoyé ay photo waaw. ay photo lañ ma envoyé. waaw envoyé photo yi. Ah. Euh, sama photo sama yi moo nekkoon ci sama Facebook après quelque temps après benn numéro étranger woo ma sa numéro nag yow numéro bii beneen numéro étranger la mi ngi sama journal des appels sax WhatsApp. waaw. bi ma bi ma woowee ni ma sëñ bi man dama am fii nii sa sa ay vidéo waaw mu ni ko man nii mu ni ma waaw mu ni ko man kay mënoo am samay vidéo mu ni ma yow loolu nan ko atteindre def mu ko man sëñ bi def ma dara mhm. mu ni ma léegi daal bu fekkee ni euh, na lu ñu mën a def mu ni ko lu ñu mën a def ma ne mu ne ma balaa may publier balaa may di ko jox àdduma wala ko ci ma ne ko sëñ bi fii léegi ñu mën a def ne ak Mm-hmm. mu ne ma ah mu ma mu ne waaw mu ne ma loolu ma lay wax ne commencé na yàgg tuuti cest a dire avant même ñuy bari dara avant même may may voyage. waaw may jógee may jógee Dakar bien sûr. Mm-hmm. mu euh, ah kon xaaral ci biir semaine bi ba ma def li may def ci ci photo yi ak ci vidéo yi di nga xam. Mm-hmm. léegi sànq sama benn copain maa ngi nekkoon di di ziara sama benn copain envoyé ma benn sa lien publicité bi. Lamine. parce que man comme waaw. Mhm. waaw maa mu envoyé ma sa lien publicité bi. Mhm. te man même bu nekkul woon man man même bu nekkul woon li ma li ma ko envoyé man dama lay suivre moom. Mhm. man personnellement dama lay ma ma gis sama photo. après sama copain bi ni ma en quoi tu es impliqué dans après ma ni ko rien. ma ni ko kon man est-ce que sama compte parce que lii moom moo nekk sama photo profil Facebook. ba ba nii nii man jàpp mu woon dara quoi. Mm-hmm. après sama benn ko fi tànk ba léegi mi ngi may woo nii ci suuf ko seen numéro pour moom mu woo la parce que après. ok léegi defal naa explication yi bëri na dama lay laaj lan moo la xiir ci lii ak lan moo tax nga def ko ñoolooy sama ñaari question. Euh, lan moo la déglu ma bu baax nag ah. bul déglu ma lan moo la ci xiir ak lan moo tax nga def ko soo ma expliqué leneen lu dul noonu di nga am ak man problème soo expliqué lu leer ñu bàyyi mu sedd leer na. man nag yow du am problème xam nga lan moo tax. waaw kay. moo tax. waaw. ok waaw na leer na nga expliquer lu leer. waaw kooku après yow yaay juge. ok mais man mais man bi ma mais man comme dama miimoon miim miim miim miim après biñ biñ ma yow bi nga ma envoyé vidéo yi ci laa woowaat sama benn sama copain bi ma woowaat ni ko ko man def ma Adam def ma vidéo ci laa ko ni ko booy ma ne ko ah, mu ni ma Adam ko Adam mu amul dara lu ñu ko wax ndax vidéo yi dëgg la man la mu ni ma ah ma ne ko waaw vidéo yi man la parce que man ku ma xam-xam ni dëgg laay dee. Mm-hmm. mu ni benn yoon laa mos a di vidéo yi tey yére bi ma sol ak liñ ma envoyé noonu benn nit laa mos a defal yi te kooku noonu moom laa jàpp ne moom laa jàpp ne moom la war a doon ndax te dañu doon ànd biñ koy def ma bàyyi ko ñu bon parce que li mu def man je le moom elle le sait peut-être bëgg na ma pardonné que jaar na fu nekk ma tëj bunt yi jaar na fu nekk ma tëj bunt yi parce que je lui ai dit man changé naa sama étape de vie am li nga xam te ci topp na ma Modou topp bu nekk ma tëj buntu yëpp donc peut-être lii nii benn moyen la woon pour venger wu ci man mais vidéo yi boo bëggee dégg dëgg man la te biñ koy def man ak moom on était ensemble ñu def vidéo yi mais après loolu parawuñ benn ndekete lan moo tax ndaw si kanamam génnul lëfam la lay wat di baaraam boppam yow nga wane sa kanam di génnee sa koy lu tax différence boobu parce que j'avais confiance en elle ah, confiance nga amoon ci moom ah moo tax nga def ko daal mais est-ce que ce que est-ce que est-ce que di wax ak jigéen di génnee sa koy di def nii est loolu yëfu jullit la. non franchement léegi lan moo tax nga di ko def. Euh, boobu c'était la première fois. dama ne lan moo tax. bon parce que moom moo ma ko proposé déjà. yow jigéen mën na laa proposé loo xamante ni bëggoo ko te ngay magum jëm yow ngay kilifa du lamin lan la tuddee sa tur bi tur bu mag la de du Lamine. Mm-hmm. kilifa gi. Mm. kilifa gi. Mm. Euh, man essayé wu sama bopp de. Mm-hmm. justifié wu ma justifié wu ma te li ñuy wax mea culpa dama def sama mea culpa. Mm. mais est que gisoo ne est que gisoo ne dama lay laaj donc question la est ce que gisoo ne euh, man dañ victime la gisoo loolu. magub magub jëmu mu na yow noo doonee victime yow yow loo def ko tey. yow jigéen loo ko bëgg bëgg bëgg jigéen warul laa woo naan la génneel sa Ablaye Ndiaye nga génnee ko waxuma la nga wane sa kanam nag téye ko naan nii Lamine nag loolu yëfu dof la. non du amul. man samay koo yi man maa taxaw ci live génnee ko man Adama Boss lay néegi mais bu dul loolu amul benn jigéen bu may def ak vidéo bu naan ma wan ma samay kooy ma génnee samay koy naan damay mballu xalaatuma ko ci àdduna bi benn jigéen nekk mi naa sax jëraluma ko am na loo xam te yëfu jullit mballu wo mais li ngay def di génnee sa koy di def nii lu mu. def na waaw mais li nga doon def nii sa koy bi kon da ko doon génnee noonu rek pour wane ko. man man man dama masturbé wu. c'est ce qu'elle voulait. est-ce que c'est ah, moom da ngaa mu gis ko rek. encore une fois moom loolu la ma demandé woon encore une fois bi ma koy def man moom on était yaakaaruma woon ni suñu demee ba man ak moom ñu nekk ci problème Hmm. parce que aussi xaw ma woon ni appel whatsapp dinañ ko mën a enregistré je savais pas moo tax ma ni la parce que yaakaaroon ni victime man su ma xamoon ni parce que bu fekkoon dama def vidéo bi envoyé ko ko mais man defuma vidéo bi envoyé ko xam ne appel vidéo mën ko enregistré je savais pas kon hmm. ma la def capture d'écran capture d'image mais mosuma xam ne mën nañ ko enregistré je savais pas je savais pas parce que bu fekkoon ni dama ko xam je vais pas le faire parce que du benn yoon du ñaari yoon peut mu may mu may mu loolu di ko di ko envoyé ma sa vidéo mais jamais jamais soo gisee ma accepté appel vidéo parce que mosuma xam ne appel vidéo mën nañu ko mën nañu ko enregistré te encore une fois vidéo yi euh, duré na commencé na yàgg tuuti te bi muy am man ak moom on était ensemble très sincèrement nii daal la demee. beneen yoon lii la daal la ti lii bu ko defati laa wax man kay amul dama ne la lii lii bu mu la dalati sa àdduna ok kon baax na amul problème amal jàmm euh, léegi waaw ma ne ko léegi non amul problème man bàyyi naa mu sedd mais bu mu la dalati lu sedd c'est-à-dire dumal Pastef non non non dugal yow man man dumal ma dugal man am naa yeneen yeneen yu ay ay lëf yu ëpp solo sa koy bi mais nag bu mu na dalati dégg nga. Euh, d'accord. ok Orange mi ngi lay jaajëfal mi ngi lay jaajëfal. dama koo fàtte woon sax Mouhamadou Lamine moom moo woote sinon fàtte woon naa ko ndax ci vidéo laa doon ñëw. Adja même ajaa dama koo fàtte woon kii ngeen di gis nii soxna ajaa mais man photo yi ma bëgg a affiché lan moo tax nekkul fii bay te man envoyé woon naa lépp fii sarab nday lii rek wooloon Adja ci yéen de foog naa sénégalais yi am na ko ma woowaloon Adja de lu wax dama koo fàtte woon man xam nga lan mooy sama problème photo yu bari dama leen bëgg a affiché te man envoyé woon naa fi te gisuma leen quoi. non ma xam ko dama ko bàyyi ci biir rek yow yow laay bàyyi nga téegal ndeyam xam naa ne Lamine day fay comprendre nga kocc moo may envoyé message nii naan ma Lamine day duul ma ne ko expliqué nan ma ko xam naa ne day duul mais dama ko bàyyi ci biir waaw. Kocc nee na comme que day fen xaaral ma katt ndeyu vidéo yi parce que vidéo yi ci koor gi la man eh, wax nañ ma lépp ma bàyyi ko ci biir muy duul rek dinaa ko baal nag man duma ko affiché mais Kocc moom nee na day katt ndeyam mi ngi nii comme que day fen xaaral ma katt ndeyam ci ci kii bi mi ngi nii léegi la ko bind. léegi gars yi ñëw ci Adja Adja am na ku ma joxoon ni numéro pour mu wol ma ko parce que mi ngi Sénégal moom. kii laa waxoon mu wol ma ajaalum wax mais yow lu wax yow Adja. Ah, ah dañ ko fay. Oh, Adja tamit jotoo baax na koppel orange mi ngi lay jaajëfal léegi coach defal ndànk moo wax la Lamine yow yaa ne comme que nday fan kattal ndayam ci site bi Adja doxaanal ndayam caba sekk dëggal ndayam mais caba may ma tuuti bala nga kaa dugal parce que caba dama ko war a wan Sénégalais yi ci sama beneen compte Instagram man nga dugal nag yow en attendant gars yi bëgg a seetaan neen ci site bi mais man dama leen koy wan spécial euh, facette facette euh, ki ma leen waxoon léegi nu mu tuddati facette euh, kii xaa may a dee waay nu mu tuddati Sénégalais bi Bissette Bissette Thomas Bissette Thomas suba lañ koy dugal suba incha allah wala suba suba incha allahu rabbi biset Thomas suba lañ koy wane. kii nii incha allah suba lañ koy dugal parce que daa am vidéo yu des si moom kii daa am vidéo yu des comprendre ngeen ok léegi gars yi xaaral kii mi ngi woote waat waaw. non da def lu gaaw man a temps de. baax na soo jotu rek amu problème damay jàll. ok léegi gars jour insha allahu rabbi chaque jour bis bu yàlla sàkk dinañ leen génneel ñaar ci ñooñu bu dee li yàlla mayiwul dëñul ci sénégalais yi dinañ leen weer ñoom ñépp parce que nekk du bàyyi di katt ay xaj di naan ay day di ndekkee ay day di reeree ay day di desooroo ay day di njogandikoo ay day day rak katt ay xaj ak i fas moom ak i mbaam loolu ñag yi leen ko xamee mais pas ay sénégalais juutu am xaj di la katt bay daam sarab ndeyi loolu ñu bëree ngi Dubaay nag di ñëw di teg ay cheveux naturel ah di dawal ay oto yu di dem ci géej gi di dugg fii di fotow ngeen yaakaar ne xaalis bu nu am mooy loolu fekk ñu ci bëri sa waay li ma leen wax xanaa déggu leen ko bee Dubaay un million lay jar wala un million deux cent Sénégal boo ko jëndee ba dem boo demee ba Dubaay da nga war a jël hôtel man mii man xam nga ñaata laay fay hôtel hôtel bu ma nekk presque trois jours trois jours yu ma nekk man qu cent euros naa wala cinq cent euros sama trois jour hôtel ñetti fan barki dem bayer na mun sin gii laa demoon mun sin fii la fii trois jours laa fa def cinq cent euros mais man yor naa xaalis bi te maa ngi liggéey te man am naa xaalis bi loolu ñëpp xam ne man am naa xaalis bi man fu bëgg a dem dama fay dem fu ma a jël hôtel dama fay jël hôtel dëkkuma fenn dewuma ci kër kenn parce que man am naa xaalis bi mais liggéeyoo yoroo xaalis kenn xamul looy liggéey defoo dara bëgg di laal say hôtel yu seer di jëndal sa bopp ay bee un million nangam di dem Dubaï mais mais mais gars yi il faut ñu imaginer tuuti fan lañ koy jëlee fan la ni jëlee loolu fan lañ koy jëlee damaa bëgg ngeen wax ma ñoom fan la ni jëlee xaalis bi fan liggéeyoo. sa waay liggéey moo tax gars yi bu leen ñee ku dem Dubaay du ñëpp nag mais di lii day yàq deru Sénégalais yi nekk Dubaay ñi nga xamante ni dañuy dem Dubaay pour liggéey lii da leen di yàqal ñi nga xamante si nii dañuy dem Dubaay pour liggéey lii da leen di yàqal day yàq deru Sénégalais yi nekk Dubaay yépp deru Sénégalais yi nekk Dubaay yépp yépp lay yàqal mais c'est honteux c'est pas normal danga fay dem pour liggéey mais lii dalay yàqal fi mu toll Dubaï sax dañ ko war a bay Dubaï Dubaï du lu baax lenn daal xamal naa leen ko lekk dayu naar yi moom naar yi buñ bëggee ku lekk seeni day ñu wow seen yaay wala seen papa ñu lekk nday yi seeni day bu buñ bëggee day yu ni njogandikoo ñu jox ko nday yi seen day yi ñu njogandikoo ko ah buñ bëggee day yu ni reere ñu woo seen yaay yi ñu reeree seeni day wala seen ñu bokk ci seen bu buñ bëggee day yu ni xëddee wala yu nu deseeroo ñu woo seen dëjëw nday mais lii daal dana arrêté sénégalais buy lekk ay day moom di njogandikoo ay day di ndekkee ay day di reeree ay day di di deseeroo ay day dina dakk léegi ma dëgg seen day ñoom ñëpp génnee seen day du bàyyi gi jeex ay xaj xaj di la kat lëf pour nit la lëfu nit pour lëfu nit la mais lëfu nit du pour xaj koo ci wax nag mu masqué kanam gi toog yaakaar ne doo leen jàpp affaire bi du noonu de lëfu nit lëfu nit ok gars yi Kocc xam naa dina dugal vidéo yi léegi mais man maa ngi dem live parce que dama leen a war a wan vidéo bi ngeen seetaan ko léegi vidéo cama bi laa leen ni wan mais xoolal da ngeen may topp nag ci samay compte Instagram yi may defee live yi damaa xamul nag ndax yépp lan bloqué wala am na bu nu bàyyi am na bu tudd Adama et Eva jàpp leen ko xaw ma nag fu may live bu ci dox rek fa laay live am na bu tudd Adama et Eva Adama Eva am na bu tudd rétro Sénégal ñaar yooyu daal benn dina ci dox su ci benn doxul nag amu leen sens ngeen seetaan ko ci site bi su ci benn doxee ma wan ko parce que man yooyu rek laay defee live di wane samay bagage président Capo duma ko fa def fii duma ko fa def léegi da ngeen may topp ci compte yi Adama et Eva ngeen di essayé ndax dina dox man maa ngi koy live nii ak rétro Sénégal rétro Sénégal Adama Eva topp leen ma ci compte yooyu dégg ngeen maa ngi coupé wasalaam kocc dina doxaan ndeyam léegi ci site bi caba euh, na ku ne am jàmm suba damay liggéeyi demee yàlla du merci beaucoup kontaan naa yàlla na yàlla defal jàmm defal ko ñëpp ak ñi doon seetaan lépp ay jeex incha allah merci beaucoup.